alhamdulillahi rabbil alamin yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala allasi min qablikum laallakum tattaqun bokki jullit yi bokki talibe assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu gannaaw ba leen yow noo ziyaara bu baax di leen ndokkeel di leen jaajëfal bu baax di ñaanal Cheikh Mahamadoul Muntaqa sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko naalam yëpp yàlla na yàgg ci barke Cheikh Ahmadou Bamba xadima rasul di ñaanal bu baax jëmm ju baax ji fi teewal di sëriñ Cheikh Mbacke ibnu sëriñ Aliou sëriñ Aliou ibnu Cheikh Mahamadoul di ko ñaanal yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko naalam yëpp yàlla na sont ci barke Cheikh Ahmadou Bamba xadima rasul mbokk jullit yi bokki taalib yi fi teew yëpp noo ngi leen di nuyu leen ziyaara bu baax di nuyu waa daayira muqaddimatul xidma noo ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel ci weeru sell wi di weer wu am solo woo xam ne mbégteeb jullit ñëpp rek di nuyu bu baax sëriñ Mohamed Mbacke ibnu sëriñ Aliou ibnu suñ ibnu suñ Seex Aliyu ngi toog ci suñu wet nu ànd it sëñ Alaaji Mbàkke moom sëriñ Cheikh moom sëñ Aliyu sëriñ Baara Boussa ñoo ngi lay ziyaara bu baax eh, di la ndokkeel bu baax te di la jaajëfal bu baax sëriñ bi it yónni ñu woon ay kàddu yoo xam ne dafa wax na suñu accès ci jataay bi nan ko biral ba mbooloom yëpp dégg ko xam ngeen nii mbooloo mii mooy mbooloo mi nga xam ne ñooy soppey rajo jant bi section bi nag ñooy section bi féete Touba xam ngeen ni it lii at mu jot dañ koy def ko def ak sunu mbokki taalibe yi nga xam ne ñooy Muxaddamatul Xidma sëriñ bi nag moo bëggoon a teewal boppam comme ni comme ni mu ko defee ci at yi ñu weesu yëpp waaye yàlla dafa dogal mu am ngant lu ko gaar mu doxi loola mu doxi yitte yooya yabal na fi ne nañ ko jëlal kàddoom nee na mi ngi leen sant bu baax sëriñ bi di leen gërëmit bu baax ndax mbooloo mii mbooloom sëñ Touba la mu fekk si waat mu fekk si waat mbooloom sëñ Touba ndax kenn ku nekk xam na ni daayira bi mooy liggéey bi ak daara ji ak tool bi loolu nag dafa mel ne dafa fekk siwaat bayit yooyu nga xam ne mooy muqaddimatul xidma te ñu mën a jël yeneen bayit yoo xam ne danañ leen mën a dëppale ndax tuuba li abdil muridin saadiqin lahumo bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyati kon dafa mel ne mbooloo muy liggéeyal sëñ Tuubaa mu fekk si mbooloo muy liggéeyal sëñ Tuubaa la kon loolu nag dafa mel na lu dal xel la lu neex Cheikh mun taxaa mii fi nekkal sëñ Touba rek la te sëriñ Cheikh képp koo xam xam na ne himmam yëpp mooy lépp loo xam ne dañ ciy liggéeyal sëñ tubaa di ci nga di ci sàkku ngërëmal sëñ Touba loolu waxtu wu nekk ma nga cee dugal loxoom di ca def ay xalaatam di ca def ay jéegoom di ca def ci ab coonoom loolu moo waral mbooloo mi nga xam ne soppee rajo jant bi TV lañ ak rajo bi. ak mboolem organes yi nga xam ne ñoo nekk ci jant bi te sëñ malik nii caméraman bi teewal leen fi nii moo waral ñoom ñëpp ñu te ñu dagg seen yite yëpp di ko def at mu nekk jël seen addiya indi ko ngir barkeeloo ko ci liggéeyu sëñ Touba bii Moukhaddamatoul Khidma di liggéeyal sëñ Touba ci Touba kon mu mel ne sëriñ bi nee na sant na leen bu baax gërëm na leen it bu baax a baax a baax liggéey bi ngeen di liggéeyal sëñ Touba yàlla ngeen ci làq ngërëmam ci barke Cheikh Amadou Bamba Khadimou Rasoul wax dëgg yàlla dalal ngeen xeli murit yëpp seral ngeen it xeli murit yépp ngir fii ngeen féete sëñ Tuubaa kenn ku nekk ci ñun waroon na la dafa mel ne nag su ngeen fi nekkee am na ñu ko teggil waaye dafa mel ne it képp ko xam nag luy liggéeyal sëñ Tuubaa la la ca war mooy ngay dajale say hadiyaat di ko dajale di ko di ko indi ci ñoom ci liggéey bi di ko jàppale loolu moom ku xam dëgg dëgg liggéey bi loolu mooy la ca war kon noo ngi leen di sant bu baax a baax ci taxawaay yi nga xam ne. yéen a koy taxawee ci masjid bu am solo bii nga xam ne Cheikh Mahamadou Moustapha mu baax ma moom la ko suñu Tuubaa joxoon ndigal mu taxawal ko ànd kook rakam ju baax ci Cheikh Amadou Fadal mu yeggale ko tey bu sëtam bu baax bii ñëwaatee di Bakam Serigne Aliou ay soppeem ak i wëllëreem ak i xaritam dajale addiya addiya ju mel nii dakk bis bu sell bii di weeru koor ñu dakk jamono bii nga xam ne jamono sàkk ngërëm la waaye jamono ñaan sunu borom wa taala la ñu ni seen addiya jox xidma looloo day firndeel ne Serigne Cheikh fàttewut ne maamam moo taxawaloon masjid bi kon loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax mu mel ni foofu la ñu wàcc suñuy kàddu jox sëñ Baara Bousso mu sof ci ay kàddoom waaye sëñ bi daal nee na sant na leen bu baax moo bëggoon a teewal boppam comme ni mu ko daan defee at yi ñu weesu yëpp waaye ngant rek moo ko dag moo tax mu bala doomam sëñ Mohamed Mbacke ak sëñ Alaaji ak sëñ Baara Bousso mii ak sëriñ Cissé mi nga xam ne. kenn la ci daayira Majmahun Nurayni loolu moon kadi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen siyaare di leen ndokkeel di leen baal aq di leen baal di ñaan sunu borom mboolu nu jéggal xam naa kàddu yi li ci ma doon wax lépp ki ma jiitu wax na ko waaye may leeral sunu kilifa yi nga toog suñu Abdou Lahad mbooloo mii nga xam ni mooy mbooloom Serigne Cheikh liggéey ban ko sosee léegi lii mu yàgg at mu jot mu feeñee suñu yéen feeñee li feeñee suñu yéen rek nag feeñee yéen képp la waaye xam na ne jumaa ji lu fi lu fi lu fi war Serigne Cheikh am na pas-pasu ànd ko yéen saa su ne nag mi ngi leen bàyyi xel baax a baax yéen tamit bàyyi ngeen xel baax waaye may sant mboolem mi nga xam ni yàlla dogal ma na seen kanam muy deere kuréel bii nga xam ne mooy kuréelu ahlu jant bi. maanaam kooku daayira maam jaare mi nga xam ne moom fee tundoo di sëñ Baara Ndiaye ngi nii an ji teew leen fi ànd ak soxna yu baax yi nuy seede ni sant rek la ak ngërëm la di feeñal suñu yéene rek ci liggéey bii nga xam ne moom ngeen liggéey sëñ Touba ndax liggéey bi yaakaar naa kuy ab julit war nga ab taalibe war sa ñaq war nga sa doole moo waral ñun nag ñu feeñal suñu yéene rek te xam ne lu fa waay def rek damay dañuy jàpp ne ñun ñun ñun nga defal ndax noo fa noo fa war njëkk noo fa war a mujj sëriñ Cheikh nag lii rek di si feeñee yéenam képp kon nag nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax a baax di sàkku ngeen ñaanal ko bu baax ba liggéey bii mu liggéey suñ Tuubaa suñu borom yi at kàttanal ko ba mu àggale ko fu ko bëgg àgg ñun daal suñu xol sedd na bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne nag ñu ngi defal na seen ñaq liggéey lii loon soññee ay weer di ko soññee ba tey jii ko indi liggéey bii liggéey baa ngi nii suñ jox nañ ko suñ Tuubaa nee na suñu jaan wàcc na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di jiite ci nuyoo bi sëñ Tuubaa Cheikh Mahamadou taxa ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko fi loolu tuwéral ko eggale ay yéeneem te ànd ko ñun dina nuyu sëñ Afiya ba sa imaam mi nga xam ne moo jiite daayira Muxaddamatu Xidma ak ci kilifay daayira Muxaddamatu Xidma yi toog ci jotaay bi yëpp di nuyu sëriñ Mohamed Mbacke ak sëriñ Cheikh ak ñi ñu ñëpp ñëw fii di leen jotale am nuyoo bu jëm ci sëriñ Cheikh nga xam ne kenn la ci daayira Muxaddamatu Xidma jëfam démbam ak bëkk démb yëpp waxtu nekk day gën a jëm kanam ndax waxtu wañ ko bis bi ñu ko fi njëkkee uwite ci ndog yi dañ koy woo téléphone yeex koo jot ñu koy jot bëgg mu ñëw fii fekk boo weesu na xuru mbàkk jëm jëm njaareem waaye bañ ko jotee téléphone daa daa da wàññi ko nga ñëw fii ci jumaa ji te boobaak léegi da ko boole ci programme am koor gu jot yëmu ca waaye day dajale ay addiyaam yi mu séq ak ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi di waa ahlu jant bi ak ñëpp rek mañ wax noonu rek ak daayira yi ànd ak moom yëpp di ànd ak moom di ñëw ci yëmul loolu jumtukaay yi mu am di ci liggéey Serigne Touba yëpp da koy def ci liggéey bi ci du am benn jafe-jafe te lu muy nekk lu nekk dañu koy woo lu ñu woo lu ñu nekk lu nekk tamit buñ ci jokkoo ak moom da cee doxe doxin mu rafet rafet kon sëñ Mouhamed bu ngeen demee ngeen sant ñu Serigne seex bu baax da xamal ne ko jëf jii ji na xam ne ne jëfam la ba tax na seetaanu ci xaaru ci kenn mu ngi ciy jëf-jëf ci rafet rafet ñi nga xam ne bàyyi nañ ko xel bàyyi nañ ci ñi nga xam ne daal saa bu ñu naroon tàyyeel seenu dëgër ak seenu jàpp liggéey bi dana tax ñu gën a sawarlu nee na ñu ngi koy ñaanal bu baax nag fa mu yéene liggéeyale egg liggéey si Tuubaa bi moo def ko te egg ci kawam ndaxte moom ku am yéene la ku jàmbaar la ku yaatal la kon nag ku mel noonu ku ko am sa kanam war nga koo ñaanal mu yàgg fi weer yéen ñi koy jàppale tamit daanaka mu liggéey bi yàlla na leen yàlla wéral te kàttanal leen ba lu ngeen def ci moom ngeen gën a mën lu ko ëpp ci bàkk Seexul Xadim daayira bi daal di daayira mu xaddamatu xidma ab daayiraam la moom xam na loolu waxtu wu nekk day jokkoo ñun lu ñu war a def wala lu ñu war a wax jëpp anam nag te lépp loo xam ne jumtukaay bu mu war a jóg bu daree bu daree sol dàllam dox mooy jóg salam dàllam dox bu dee woote téléphone mooy woote ba loolu am kon kenn la ci daayira mu xaddamatu xidma la dafa dañoo jàpp ne membre mu xaddamatu xidma moo indi am addiyaam ci daayira mu xaddamatu xidma ndax yéen mii seen jëwriñ moom moom bu duggee duggaale ngeen kon lii ñu nekk ak yéen ñi ngeen nekk eh, lépp benn la ñi ngi ñaan jumtukaay yi mu yor yëpp yàlla kàttanal ko ba lim ci bëgg léegi Sëriñ Tuubaa mu def ko ci bàkki Seex Xaadim xam naa waxtu wee xat moo tax waaye dañuy sant sant lu mu guddoo noonu yaatu woon te mënta yoo sant ak gërëm te sant nañ ko bu baax gërëm nañ ko xam nañ ni mu bàyyee xel tamit daayira Muxaddamatul Xidma waaye koo xam ne seetu Cheikh Moustapha la bu bàyyee xel lu jaadu la wàcc na koy ñaanal bu baax a baax yàlla kàttanal ko dëgëral ko ba li mu yéene woon mu yeggale ko ci bàkki Seex Xaadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh